xarajtu yow mu sabti saamin achar li xidmatin muxtaari fi chahri safar mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu santaatee sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen ndokkeel di leen ñaanal tawfiq ak taysiir waaye di ko ñaanal mboolem mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ñu ngi ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu yàggal fi moom Cheikh Mamadul Muntaqa noonu lañ koy ñaanale Serigne Cheikh Jëmb Fall waaye noonu lañ koy ñaanale mbokk julit yëpp ak mbokki taalibi yëpp di leen ñaanal màggalu jàmm mbokk yi jëmm ji ñu fas yéene waxtaane muy koo xam ni ku neex a waxtaane la ndax lu am solo li nga xamante ni moom la fi def muy lislaam la ñëw gàddu ko yóbbu ko ba ko sunu borom soxlaa waaye mu doon koo xam ni moo fi wuutu woon yonente bi sallallahu taalaa alayhi wa sallam bokk ci mu jàdd jàddati jamonoom ni ca lislaam yóbbu ko fu kawe loolu moo waral mu doon ku ku neex a waxtaane kooku mooy kan mooy cheikhul xaddim mu naqare waxtaane nag lool ndax li tax mooy fi mu toll ci xoli doomu aadama yi waaye moom ci boppam mu waxal boppam wax yoo xam ni soo xoolee ci dimension boobu kon day naqaree waxtaane lool ndax mooy koo xam ni jaamu na yàlla juróom-ñaar fukki junni at ñu door a tën aadamu jëkk ma kon kooku naqare naa waxtaane mooy ki nga xamante ne coobare sunu boroom la subhanahu wa taala mooy koo xam ne it ni moo waxalan boppam ni ñett a ko xam mu yàlla sunu borom subhanahu wa taala mi ko bind ak tubaab bi ko yàlla boole lan ñu yóbbu ko ci liggéey boobu nga xam ne ci la ràmmoo ñun ñëpp ak nee na taalibe bi nga xam ne da koo yaakaar faatu dugg bàmmeel looloo tax may indi ñaari wax yooyu saa su nekk ci neex naa waxtaane layal ko waaye naqari naa waxtaane ndax day koo xam ne kenn xamu ko moom Cheikhul Khadim nag moomu ñu fa yéene waxtaane xam ngeen ni ci période bi nu nekk xam ngeen ni mooy période bi mu noonu lañ ko santale yàlla muy bisub màggalu Tuuba baatum màggalit sëñ Tuuba moo nu ko digalan te ci moom lañ ko mas a déggee te màggal buñ ko waxee xel yépp dem ci sëñ moom Cheikhul Khadim miit lañ mas a dégg ci histoire koo xam ni sa bis yi nga xam ne ci lañ la teg ay nattu nga def ko muy bis bi ngay sant sunu borom subhanahu wa ta'ala muy kañ muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar incha allahu taala fas yéene nañoo ànd ak yéen ci ay émission yu wuute ci ay tem yu wuute ci xamle sunu jàmbaar ju tedd ji nga xam ni moo waxan moom sëñ Tuubaa ni yàlla dimbali ma yàlla dimbali na ma mbindeef yi topp ma ci géej gi ak jéer ji ndax damay njariñ lu àndut ak lor wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbau nii fil barri wal bahri saa nafañ bi laa dararin moom Cheikhul Xaddim moomu ñu fas yéene waxtaane nag mu jëm ci waajtaayu màggal gi jëm ci dix-huit safar moom sëriñ tubaa waxal naa léegi ci njëlbeen gi ni mooy ki nga xam ni moo fi wuutu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa waaye wuutu googu mu ko wuutu coobare yonent bee moo tax nga gis Serigne tubaa di wax ni raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimahu wa abdullahi rasulullahi moo sàkku ci sunu borom subhanahu wa may ki nga xam ne maa koy wuutu waaye doon koo xam ne damay doon mu jàdditu jamono loola di lu am solo loo xam ne saa su nekk war nañ koy fàttalante bu baax a baax a baax a baax te ci loolu lañ fas yéene jublu mbokk yi loolu di am solo loo xam ni moo tax fas yéene nañ leen indil Cheikhul xaddiim waaye mbooleem fi nga xamante ni fépp fi la jaar ba ni mu amee bis bu tedd bii nga xam ne moom la wooteel boppam muy ku ko santal sun santale sunu borom subhanahu wa taala euh, tey nag ngir tënk ci sëriñ Touba xaadimu rasul xam ngeen ni doomi boroom Touba la ak soxna jaar jaara Buso radiallahu taala anhu euh, mu ngi gane jamono ci dëkk bu siiw bi ñu xam muy Mbàkke Bawal ci atum 1853 loolu Euh, boroom xam-xam yu baree bari maase nañ ci ginnaaw buñ ko gëstoo mbàkke bawol googee mu gën a jamono nag maamam ju ñuy wax maam maharam moo ko sancoon euh, sëriñ Tuubaa it ñuy xamle ni ku teel a dal alxuraan la xam naa gisaguma benn bindkat ci bindkat yi bind ci yoonu murit ku wax ku wax ne at sàngam bi ci sëñ Tuubaa tolloo la tàmbali jàng waaye daal dinañ ci déggee ni ku teel a dal alxuraan la ku ko teel wattu la ku ko teel a la ngir li koy wane mooy lu mel ni ummul barahin di mawaahibul quddus bi mu koy bind ak yenn téere yu mel ni moom boobu fukki at ak ñett la am kon loolu day wane ni ku teel a daal alxuraan la euh, kan moo ko jàngal maamam ju tudd tafsir Mbàkke Ndumbe moo ko dalal alxuraan moo ko jàngal alquranul karim mu jàngit xam-xam ci waajuramu góor muy Mamor Anta Sali kon daal di nañuy xam ban at la judd muy 1853 waajuramu góor mooy mooy Mamor Anta Sali waajuramu jigéen mooy Soxna Jaara mbakke ba walla gane jamono tafsir Mbàkke Ndumbe maamam jooju moo ko dalal alquranul karim waaye xam-xam waajuram moo ko jàngal mbokk yi boo gisee doo gis mukk ñun la sëñ Tuubaa mas naa jànk dem jàngi mooy booba waajuram Maam Mor Anta Sali moo yoroon université bu mag bi mooy ki nga xamante ni boroom xam-xam yëpp yëpp ci moom lañ daan jànge si sëriñ tubaat bi nga xamante ni nekk na ci daara ji di jàng alquran di jàng xam-xam wax nañ ni dafa bare woon lool ak mokkal ba wax nañ ni sax ku ñuy wax euh, maam Balla Touré moom lañu wax ni moo ko xawoon a dab dabaatal te sëriñ Touba da ëppan ak wattu ëppoon ko ak sàmm ëpp ko ak mokkal ndax li ci firnde ji mooy ba Bassirou Mbacké moom Cheikhul Khadim nee na Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké al Karim ak ma sàmba ñoo ko wax ni ko sëriñ bi wax na leen ni daan na mokkal téere yu bari yoo xam ni duñ àggagun sax ci war koo jàngale ba sax di leen wax ne lu mel ni xam-xami fiq ak tasawuf yu ci baree bari téere yu ko daan jàngale daan na ko mokkal laata ñuy àgg ci di ko jàngal lu mel ni ibnu ataillah ak lu mel ni dalailul xayrat ak lu ma lu mel ni nafxu tiib nga xam ne ay téere la ak risaale ibnu abi saydu xayrawaani nga xam ni ak lu mel ni muxtasarul xadis yooyu yëpp ay téere la yoo xam ne daan na ko mokkal muxtasarul xalil te duñu àggagun sax ci di ko ko jàngal nga xam ni farlu gi nekkoon ci moom moo taxoon mu mujj tiim ñuñ jamonoom maanaam mboolem ku jamonoon teeg sëñ tubaa ci jamono booba sëñ tubaa tiim na la ci li nga xamante ne mooy wàllu jàng rawatina ci wàllu xam-xam ba ko mel ni sëriñ ma jaxate sëriñ xaadima jaxate kala xam nga fóori ju mag yoo xam ne mboolem ñi fi raw ñëpp moo leen daan jàngal waaye jamono sëriñ Tuubaa daan bind di ko jox mu di ko ko toppal ba yàgg xaadima jaxate dafa mujj wax ko ni ko léegi li am mooy del bind di ma jox may mokkal waaye gisatuma lu ma lay toppal nga xam ne ca la ko daan wax sax bay du siiw yooyu nga xam ne di koy dégg kunt kunta ab nan fa ab ban wa kuntu tilmisan fa sirtu sayxan <laughs> muy wax yoo xam ni defe naa ne loolu rek ci kuñ ni ndaw nga daal di ngay gis ni sëñ daa daal dinay tàmbalee jummal jommal waa jamonoom ndax xaadima jaxate kala da ko doon jàngal waaye sëñ Tuubaa daa mujj di ko jox di ko jox ay bind mu di ko toppal ba mujj xaadima jaxate kala moo bind ay bind jox ko ne ko ah yow kat xam nga noo demee eh, dama nekkoon danga nekkoon doom ba yàgg nga nekk waaye nga nga nga mujj nga doonan ab bi ba yàgg nga doon mujj doonub sëriñ <laughs> xoolal loolu ni ko yow kat sama doom ngoon waaye léegi mujj nga doon sama baay kon gis nga eh, wane na ko ni yow fi ne yaa ma sut daan ko sama dongo nga woon waaye léegi mujj naa doon sab dongo léegi yaay sama sëriñ muy lu lu lu lu am solo loo xam ne daat nay wane eh, yu am solo yooyu nga xam ne naka jekk moom Cheikhul Xadim daf koy feeñal ci biir ay njàngam ndax day wax ne alamani laahul alim mimma yasaau min ulum wa sabagat li bil kurum munsharifan bi shafadi nga xam ne koo xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo la jàngal faaw da ngay mokkal moo tax gis nga kàngfóori yu mag yooyu eh, dañoo mujj di ko wax wax yu am solo yooyu te booba ci jamono Xaalima Jaxate xamuñu ku ko raw eh, sëriñ Maam Mor Anta Sali Mbàkke eh, daara ji ak li ci aju lépp lu ci jëm sëñ Tuubaa moo ko daan yor foofu di nga fi am loo fiy déggee loo xam ni dana baax ci ndaw ñi topp sëñ Tuubaa ndaw ñi nga xamante ne lislaam da leen ñor ñu xam ni nit amul lu gën a kawe ci moom topp ay waajuram ndax sëñ tubaa ci jamono boobu amul dara lu muy def lu dul déggal waajuram nekk ci daara ji di ko jàngaleen kon moom bi mu fi nekkee lim doon defal sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa li doon defal boroomam mooy li ay waajuram taxewoon ci loolu la nekkoon ba ay waajuram gërëm ko ci xam ngeen ni ñu dem ba ca diir boobee Mamor Anta Sali Mbàkke daal di fiy jógee ba mu fiy xam ngeen ni bu bu bu mag a mag am na ci Sëriñ Tuubaa nee na jàng naa alxuraan ji ba mu jeex ci boppam mu door a wàcc liggéey ma ñaanal ko biñ ko ñaanaleet yàlla dogal muy dem ca rob ba gis nga la fa xew mooy fas woowee ñu ko doon warloo te mu gàntu dox waaye bi nga xamante ne jóge na faat yàlla daa dogal ndeysaan ku ñuy wax euh, sëriñ ba Mouhamadou Ndumbe Maar Silla moo ko doon taxawu waaye bi mu noppee bi mu taxawoo sëñ Mamoor Anta ba pare wax na sëriñ bi ni ko dama bëgg ñu dem ca Lat Joor ma boole la moom ngir mu teg la fa mu tegan sa wajur wu tedd wa waaye sëriñ bi wax ko waxam yu am solo yooyee loola nag fa la sëriñ tubaa nag tàmbalee nag nit ñi ni kon kii nag moom ci saasa moom tàmbali naa wuuteeg nit ñi ndax ca jamono booba maanaam ànd ak buur jàpp nañ ni mooy li gën a rëy ci àdduna booba mi ngi mel ne tey ñu noonu la euh, président de la république da woo ni la da laa bëgg a def ministre de conseil wala da laa bëgg a def ministre nga ne daal loolu man bëgguma ko ñëpp ni kon kii dafa wéradi kon kii am na lu ko dal ndax li gën a baax moom la gàntu ci la tàmbalee nag wuuteeg ñoom ca la way ñaari xasidaam yu siiw yooyee muy muy muy muy xaalu shafihun li sharfi anhumul basari ak xaalu li irkan li abwaaba salatini taxus jawa isa tourni kulla ma xiini kon mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen incha allahu taala danañ àndaat ak yéen fas yéene koo toppee noonu dunduk seexul xaddim ba ci li nga xamante ni mooy bis bu tedd bi di 18 safar ila